dal leen ak jàmm mbokk internet yi coronavirus yi wër na àdduna waaye nag tonton saay-saay yi jamono ji ñu ngi lëmbee réew mi ngir nekk ab actrice ci série télévisée yenn ci ay jigéen dañ leen di saay-saayee wala sax di leen tëddee Racky Aïdara moom daanaka demoon na bay bokk ci ñooñu la série téléfilm sénégalais yi daanaka dafa xew ba tax lu ëpp ci ndaw yi daal di fëx jëm ca ay actrice ak i star yu bees tàkk daal di ciy génn feeñ ci fës lool ci télévision yi ci misaal ñenn ñi ci gën a ràññeeku mel ni Lisa Kati Simer Diaw ak Ndeye Diallo ci série Un Café Avec mbaa Soumboulou Bathily ci Wiri ci Pod et Marichou ñeneen ñu mel ñuy ñoom dafa mel ni daan daanaka jamono ji xale yu jigéen yu bari dañ leen a jàpp def leen ay royukaay ñee leen bëgg a mel ni ñoom ngir rôle yi ñuy joué ca télé ba di fësal mbëggeel jaloore ak am alal ju bari ñi ciy gis seen bopp te di ko seetaan nekk ñu bari lool ba tax daanaka tey jamono ji foo tourné di gis ay série ñu koy tourné te itam producteurs yi daanaka ñoom xale yu jigéen yu ndaw yu sexy rek la ñuy wër ngir li nga xamante ne mooy jaay taaru seeni film lii bokk na ci li waral la ndaw soo xamante ne ni amoo ab xëy wala sax xëy bi nga yor doyu la gàllaxndiku da ngay fexe defaru ba taaru jéem dugg ci téléfilm yi dem na sax ba mel ni ku ci bëgg bokk faw rek nga am taar waaye lii ñuul ci soow mi te ñu bari umpale ko mooy rek ne jigéen yooyu lee laata ñu yegg fi ñu bëgg a yegg mbaa ñu jouer ay rôle yu important ci yile série daanaka ay tonton saay-saay dañ leen di yàqataan di leen harceler di leen menacer que tëddee ngir rek ñu mën a feeñ ca télé ya lu bari ci ñoom nekk ay victimes ci li tubaab di woowee promotion canapé maanaam rokki mi rokki waaye li leen ko yombalal mooy yenn ci jigéen yooyu lee dañoo matérialiste tey nag fi ñuy teg seen bët mooy fexe ba mel ni artistes yooyu nga xamante ni dañoo siiw daanaka te saay suñ leen gisee ñu ngi leen di fekk ci luxe maanaam alal ju bari ñuy faral di tukki jóge Sénégal dem Dubaay génn dem bitim réew di dawal ay oto yu rafet yu tooy di am ay far wala ay jëkkër yu am xaalis tekki di faral di ànd tekki di faral di ànd ak ay borom daraja looloo waral yenn ci jigéen yi nga xamante ne dañoo opté ngir nekk ay actrices ngir bokk ci séquence yi feeñ ci télévision yi maanaam ci série yi da leen di jaral lu ne daanaka ñenn ñi dañuy dem ba sax di tëdd ak ñi nga xamante ñooy seeni patron ngir am li ñu bëgg waaw waaw ku weddi laajal Racky Aïdara moom actrice su wiiri wiiri bi nga xamante ne waa Soleil Levant ñoo ko joué ñu proposé woon ko lu ni mel maanaam promotion canap ab waxtaan bu mu séqoon nag suñuy naataangoo ci l'internet bi ci la jot a xamle loolu lee leeral ko ba mu leer nañ xam la ne itam bari nañu ko jox ay avance ak i proposition yu ni mel waaye dafa bañ a lànk ba tëdd ca naaj laataa muy bokk ci turu bu Cheikh Ndiaye mile nga doon amal ay tournage doon nañ ko def ay avance di ko def ay demande sexuelle ay proposition nar ko saay-saayee ngir mu mën a feeñ télé bokk ci rôle yi gën a important waaye moom ba tey mi nga xam le ne siiw jaralu ko lu nu mel ba tax dafa mujj lank ndax di dignitéem ak ngorom mayu ko muy nekk ci jëf yu ni mel lii lépp nekk ay firnde ci ne li làqatu ci ginnaaw série télévisée yi doy waar la ginnaaw jàngoroy coronavirus ci ab virus sexuel moo nekk ci lii di série yi jërë ngeen jëf